neen wax ji gën a siiw daal moom faratay jàpp moom juróom-ñaar la yéene mooy booy raxas sa kanam raxas bu njëkk ba fa ngay teewloo yéene ji man ngaa yéene rek joox faratay jàpp mi ndax yàllaa ko farataal ci yow bu la neexee yéene yëkkati am toj bu la neexee yéene dagan loo julli mbaa leneen lu mel ne julli raxas kanam ci boppam farata la mooy farata ñaareel bi boo raxasee raxas bu njëkk bi itam daj te doy nag farata jàngoog ba ci topp nga neel la bu fekkee bu njëkk bi doyut waaye bu ñaareel ba mu dikkee daal nay doy ba tey kon bu ñetteel bi nga neel lay doon raxas boo raxas daal dem daj te doy rek ba ca topp nga neel lay doon raxas kanam nag farata la ba noppee jàll ci loxo itam raxas loxo yi farata la ba ca conca la te nga ëmb ko tuuti ci moom conca la ndax yemale ci kese dafa jafe waaye moom it noonu la boo raxasee benn yoon tam daj te doy rek farata jàngoo ko ba ca teguwaat nga neen la raxas boo raxas te dajut nag mbaa doyut nag faaw ba ca topp du mën a ñàkk dañ koy firi gaaw rek waaye muy susalee maanaam loo def teg ci la ci topp rek ba ba ngay noppi dañuy bañ nga tàmbalee jàpp na ne ko raxas sa kanam toog di waxtaan mbaa ngay def yeneen soxla te tey ko noppi nag bëgg a jàll loolu boo ko defee mu yàqu bu fekkee fàttee tax moom du ko tee baax waaye bu fekkee yaa ko tey moom bu yàgg rek mu yàqu ni bu la yàlla bindee yéex moom sam jàpp yéex du wàññi dara ndegam sësale nga rek baax na bomb gi ba tey farata la maanaam boo xëppee ndox mi rek bàyyi te bomboo ko du baax sa bopp bi farata la waaye nag da ngay dem dellu si te dem bi mooy nekk farata wañarko bi sunna lay doon bu ne raxas tànk rek dana yóbbaal ñaar tànk ñëpp tànk bi ñu nekk nga raxas ko ba ëmb dojar ja tuuti loolu farata la kon booy wàññi farata yi ngay wax yéene muy benn raxas kanam muy ñaar raxas loxo yi ba ëmb cooc yi tuuti muy ñett masa bopp muy ñeent raxas tànk muy juróom li ñuy wax sësale loo noppi tegtal ci topp loo noppi tegtal ci topp ba keroog muy noppi muy juróom benn ak bomb ngay bomb nag boo sottee ndox mi muy juróom ñaar loolu ma waaw nee na sunnay njàpp ba tey juróom-ñaar la ci ni ko ñenn ci sañ si waxee waaye juróom-ñett yi nag moom siiw na juróom-ñett sax nga jàngoon ci téer yi nga weesu ni ki tasawudi si xaar booy tàmbalee njàpp nga raxas loxo yi ba fi ngay takk jara bu dee jigéen mbaa ab lam bu dee jigéen mbaa bopp fi ngay takk montor bu dee góor raxas loxo yi ñett yoon teewul nag boo raxasee benn yoon rek sunna si am na kon booy jàpp raxas loxo yi ñetti yoon noonu sunna la galaxndiku sunna la saraxndiku sunna la itam masa noppi sunna la tam tirte nga fiiru kasaani ki nii fiiru ba tey sunna la daa sori saraxndiku waaye mu sës ci moom maanaam booy wàññi sunna yi njàpp da ngay wax raxas loxo yi ci tikku jara yi benn galaxndiku muy ñaar saraxndiku muy ñett fiiru muy ñeent delloo masa bopp bi muy juróom masa nopp yi muy juróom benn toftale farata yi ñu suñu borom wax ne taxsiloo wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsaxoo bi ruusikum wa arjulakum ilal kaabayn noonu ko alxuraan tegalee waaw nga xam ne raxas kanam moo jiitu loxo yi topp ci masa ba topp ci tànk yu mujj noonu nga tegalee ko noonu ba tey loolu sunna la mu juróom-ñaar benn nag la wañaale wut fii te daa ko wañaale mooy yeesal ndox mi ci bala ngaa masa nopp yi xam nga dañ ne woon as ndox mi yees def ko ci baaraam yi ngay masaayo nopp yi bala ngaa masa nopp yi sunna la loolu nag boo ko ñëwaale mu juróom-ñett boo ko ñëwaale nag mu juróom-ñaar nii nee na lii njariñ la lu mat a xam hadis ba daa wax ne soo jàppee nañ la ko diggalee nga xam ne farata yi ak sunna yi ngëneel yi ñëpp yëpp ñëw nañ nga yëkkat say bët xool kaw jëm ci asamaan donte fa nga nekk sax mën laa seen asamaan mel na ci biir tabax bii nga daal di wax ashhadu an laa ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh kon ñu ubbil la mboolem juróom-ñetti bunti àjjana yi te bu la te bu la ca neex ngay dugge li boroom xam-xam yi wute nag mooy kañ kañ dañ la koy ubbil waaye loolu amu ci solo ndegam daañu la ko ubbil rek moom wuuteeg borom xam-xam yi ci waxtu ubbi ga amu ci solo soo bëggee ñu waxal la kuy jàpp na muy tegalee njàpp ma te waxe la ko ci way wu rafet nas bu rafet kon déggal nii mooy nga tàmbali raxas sa ñaari loxo ba ci tikku jara yi ñetti yoon li ci gën nag mooy da ngay ber loxo bu ne raxas ko ñetti yoon mais da ngay ber loxo ndey joor raxas la tàmbalee baaraam ya ba fa ngay takk montor ba fa ngay takk jara bu dee jigéen def ko fa càmmoñ muy juróom benn yoon teew nag mën ngaa boole yaari loxo yépp ba tey raxas ñetti yoon ndaxam sax boo boolee yépp rek ñaari loxo yi raxas benn yoon du tee sunna si am na kon daal jàppal loolu mooy njëkk ci jàpp raxas loxo yi ñetti yoon ba fa ngay takk montor ba fa ngay takk jara la ca topp nag mooy galax ndiku ñetti yoon galaxndiku mooy da ngay seex ndox mi yëngal ko yàbbi ko wala mu tudd galaxndiku li gën nag mooy da ngay def ci sa loxo loo xam ne xaj na ci sa gémmiñ daal di koy seex benn yoon yëngal ko yàbbi ko muy benn yoon nga dellu ko defaat muy ñaar dellu ko defaat muy ñett socc gi mu tuddal la ci gën moom bala ngaa tàmbalee jàpp ngay soccoo ab bant mbaa nga jël borosu awale ko ci say bañ danga na ngaa yàkkamti galaxndiku tuur door tàmbalee jàpp teewul nag boo bàyyee bay jàpp ba tool ci galax ndiku nga jël sa baaraam fompe ko bëñ yi mbaa leneen lu ñagal ci tam ba tey baax na sarax ndiku mooy nga jege si ndox mi ba mu jege sa bakkan nga ñor di ko ci sa noo mu dugg ci biir bu fekkee da ngaa woor nga bañ ko sori ndax bu rëccee jàll sa koor day dog bu fekkee wóoroo na nga ñor di ko bu baax ba mu sori ci bakkan bi dugal ko ndox ma mu dugg ci biir moo dul sarax ndiku fiiru nag mooy nga jàpp ci say bakkan mel na koy ñandu wal ndox ma duggoon ci biir génn ci bitti loolu moo tudd fiir lu ci nekk nga def ko ñetti yoon li ci gën mooy da ngay jege sil lu yem rek loo xam ne boo ko ñoddee ci sa bakkan mu dugg ci biir ko defee nag boo ko ñoddee mu dugg moo tudd saraxndiku nga jàpp ci say bakkan wal ko mu génn mu tudd fiiru nga jàpp ne am nga benn saraxndiku ak benn fiiru di ko def ba mu ñetti yoon nag loolu moo gën nee na boo noppee ci saraxndikoo fiiru raxas kanam moo ci topp raxas kanam nag dañ koy def ñetti yoon te ci raxas bu njëkk bi ci ngay teewloo yéene ji mooy boo taamu di raxas raxas bu njëkk bi ci ngay teewloo jox faratay njàpp yi mbaa ci nga yéene yëkkati am toj mbaa ci nga yéene dagan loo julli ak lu na mel dañuy wax ñetti yoon ci raxas bi nag waaye boo raxasee benn tam daj te mat rek farata jàngoog ba ca topp ngëneel la bu benn matul dajut ba ca topp du mën a ñàkk waaye jàppal ne boo raxas tam daj te mat rek ba toppaat ci moom ci raxas ngëneel la boo noppee ci kanam nga ñëw ci loxom nday joor te booy raxas loxo ba nga dem ba ëmb conc ya tuuti te it nga baamuwaat la nga njëkk a raxas ba ngay tàmbalee njàpp ngi tàmbalee baaraam yi ba ci tikku jara yi na nga ko baamuwaat ci ba tooloo ci raxas loxo yi te nga xalilaale baaraam yi ndax xalil baaraam yi waru gar la dañ ko wàññi woon sax te suuti ci xaar muy farata ndax topp alimaamul xaw fi moo tax mu indi ci mu xali leen jële ngay raxas loxom ndeyjoor jàll ci bopp càmmooñ te loxo bu ne boo ko raxas nga dem ba ëpp conce la tuuti ndax yemale ci képp képp dafa xaw a jafe boo noppee ci loxo càmmoñ da ngay jàll massa bopp bi massa bopp bi dem dikk rek lay doon dem bi nekk farata dellu si bi nekk sunna li gën nag mooy nga tàmbalee ko ci jëbi ci kawar baaxoo saxe daal di bom ba ca doq ga nga ñëwaat nag ba ci jëbi nga tàmbalee woon dem bi nekk farata dellu si bi nekk sunna boo noppee ci bopp bi nga jàll massa nopp yi masa nopp yi moom boo tooyalee say baaraam da ngay jekki-jekki daal di masa benn yoon rek bàyyi ndax jubluwuñ mu set bu jubluwoon mu set dañ lay wax nga raxas ko waaye nag bala ngaa masa nopp yi da nga yeesal ndox yeesal ndox mooy nga asaat ndox mu yees def ci baaraam yi nga xam ne ñooy bëgg masa nopp yi te bañ a doyloo tooy ba loxo ya tooyoon ci ba ngay masa bopp rek yeesal ndox gu wax ne soo ko wàññee ci sunna yi kon sunna yi nekk juróom-ñett boo noppee ci masa nopp yi raxas tànk yi moo ci des da ngay jëkke tànkum ndeyjoor te xalilaale baaraami tànk yi waaye nag xalil baaraami tànk yi nañ ko sopp rek bokkut ak baaraami loxo yi moom xalil ga benn muy waru gar mbaa mi farata waaye baaraami tànk ni ko yàlla bindee dafa jege bu dee ci njàpp moom dañoo sopp rek nga raxas diggante baaraam bu ne moroom na ci baaraami tànk yi bu dee cangaay nag moom farata la fa nga teqale ko foofu moom baaraami tànk yi bu dee cangaay moom farata la fa ngay raxas tànkum ndeyjoor nag ba ëmb ba ëmb dojar ya tuuti ñëw na ci tànkub càmmoñ def ko noonu kon nag boo ko defee rek njàpp maa ngoog nee nag booy tàmbalee njàpp ngay raxas say loxo ba ci tikku jara yi moom dañ nu koo digal doonte loxo yi daa set wecc itam du tee rek sunna la nga raxas loxo yi ñetti yoon booy tàmbale bu dee ndab looy as sax bala ngaa tàmbalee as da ngay dëngal ndab la raxas loxo yi ñetti yoon door a tàmbalee as doonte loxo yi set na wecc itam dañ nu koo digal rek waaw nee na nga amee janaaba ak nga yeewoo ci nelaw rek noonu nga xam ne de moo ci woon a mbaa dara bañ naa say loxo taq na sobi mbaa dara du ca dara du tee rek bay tàmbalee njàpp moom dañ noo digal nu raxas sunuy loxo ba ci dikk jara yi ñetti yoon set ga du ca dara bàyyikoo ci luy nuru lu am sobe ak bàyyikoo ci ay nelaw yu kese yi nga xam ne say loxo takku si ñooyee moo du tee rek ñu digal nu bay tàmbalee njàpp nga raxas loxo yi ñetti yoon maanaam boo doon jàppee ci dex mbaa lu mel ne géej mbaa lu mel ne ab déeg yépp ñoo ci yemoo du tee raxas loxo yi ñetti yoon ci bi ngay tàmbalee njàpp sunna la day def nag bu dee dex ga mbaa ndox mu bari moo xam ne moom mënoo ko mën mën laa dëngal ndox mu ba raxas say loxo su boobaa da ngay jekki-jekki askon boo doon yeesal sam njàpp itam rek du tee ñu sàkku ci yow nga raxas loxo yi ñetti yoon ba tey noonu moo tax moo ndi aw mu jàddi dan ñee taxabut mooy lu ñu sant te xamuñu xikama ba maanaam xamuñu la tax kon taxas loxo yi ci noonu booy tàmbali xamuñu tax ñu digal nu ko moo tax kon boo koy ne da nga yéene sunna si da nga yéene raxas loxo yi ànd ak yéene waale sunna sa ndax li ñu ko digal te xamuñu lan mooy xikma ba nee na bu fekkee ne nga doon jàpp ba yàgg fan njàpp mi toj nga war a tàmbaliwaat koy dutee sunna la nga tàmbaleewaat raxas loxo yi ñetti yoon door a jàll dutee nga baabuwaat raxas loxo yi ñetti yoon ci tàmbali waa wax dañu ko digal rek nee na boo xasi raxas benn yoon rek sunna si am na la ci topp nag raxas ko ñaar ñett dañ koo sopp rek waaye sunna si moom boo raxasee benn yoon rek dal na yoon bu dee ndox muy wal di daw mbaa ndoxum géej mbaa dex xam daa bari daañu santaani sax raxas loxo yi ñetti yoon ba ci tukki jare yi waaye duñu wax ne na nga jéem a dëngal ndox ma mbaa bul jekki-jekki as maanaam daal foofu duñu sart ne bul jekki-jekki as da ngay jekki-jekki as ndax ndegam ndox mu bari la ni ki géej mbaa deex waaw kon da ngay jekki-jekki as rek moom waaye ak dëngal mbaa dara amu fa waaw bu bu doon lu mel ne biñ waar nag nga xam ne moom ñëexute dëngal te it boo jekki-jekki as say loxo daa tax xëy na dana soppi ndox ma kon say boo seet pexe yoon day bëgg a xamle benn benn baat yi mu njëkk a xamle galax ndiko nee na boo jëlee ndox def ko ci sa gimiñ yëngal ko yàbbi ko boole ci loolu moo tudd galax ndiko saxandiku moom nee na mooy nga indi ndox mi ba mu jege sa bakkan nga ñoddi ko ci sa ak sa noo muy nga xëcc ko ci sa nooxu bakkan mu dugg ci biir loolu moo tudd saraxandiku. nee na bu fekkee ni wóoroo nag moom booy saraxandiku da nga koy ñoddi bu baax a baax ba ndox ma dugg ci biir li biir ba sori ca paxi bakkan ya boo waree nga yemale ko ci bunt bi rek ndax bu rëccee jàll koor gi lay dal ko. nee na fiiru moom yomb naa xamle. ndegam saraxndiku mooy nga ñor di ndox ma ci say noo mu dugg ci biir paxi bakkan yi léegi nag boo jëlee sa baaraamu sànnikaay ak sa baaraamu dee ci sa loxob càmmooñ jàpp ci sa bakkan wal ndox moomee duggoon ca paxi bakkan yi mu génn ci bitti loolu moo tudd féeru man nga koo def nag bu yam jërul nga di ko def far far ni bu ëpp ni ko mbaam di defee moo tax mu naa laakal ximaar yi waaye jàpp ci sa bakkan rek wal rek mu doy waaye jërul nag ñu mbaam di fiiroo mu tàgg da lay wax lan mooy delloo masa boobu nañ la day boo tàmbalee ci jëb yi fi ko war baaxoo saxe ci misaal dem ba ci dox fa nga war a yem loolu mooy dem bi moom mooy farata foofee nga yem nag ca masaaga ci dox ga boo ñëwaatee tàmbalee ci ba fi nga tàmbalee woon ci jëbi nag waaw kay loolu mooy delloo masaaga loolu mooy sunna dañoo sopp rek nag nga tàmbalee ci jëbi ba ca dox ga waaye boo tàmbalee ci dox ga ba delluwaat ci dox ga yi du nga tee baax fi ngay tàmbalee masaa gi mooy fi kawar baaxoo saxee ci jëbi nga wéy nag ba fa mu yem ca dox ga loolu mooy yemukaay ba ci dem bi gooñal bi guwaat nag ba ñëwaat fi nga tàmbale woon fi jëbi kawar baaxoo saxee nee na booy masaa da ngay ràbbale baaraam yi gannaaw ba nga leen tooyalee bañ tooy su ko defee sa ñaari baaraam yi nga teg ko ci kaabaab gi bu ko defee daal di bomb nag léegi wéy waa nga ci dox nga gooñal bi guwaat ba jëbi nga tàmbale woon nee na masa nopp yi moom da nga koy def biir ak bitti waaye nee na nga seetlu ne buñ nee bitti bi mooy la féeteeg bopp ba nopp bi la ca féeteeg bopp nga xam ne boo dee xool doo ko seen moo tudd saahir si boo dee xool nopp nit la ngay jàkkaar lool lañ jàpp ne mooy baatin ba la nga dul seen nag mu féeteeg bopp ba mooy saahir sa ndax dañ ab nopp ni ko yàlla bindi daa mel ab tóortóor banku wëlbati ko nag fett benkar ci ko sooy masa say nopp dañoo bëgg rek nga massa benn yoon daal di bàyyi waaye jubluwuñu nag ngay toppatoo ras ras yaa xóot xóot ya ndax loolu ëppal rek la ndax buñ jubluwoon mu set dañ lay wax nga raxas ko kon bi la nee massa noppi xamal ne kon ak jàppandal lañ ca jublu dana xamal lan mooy yeesal ndox mi ne la mooy nga def ndox mi yees ci ñaari baaraami sànnikaay yi ak ñaari baaraami dëy yi bala ngaa massa noppi nga sot ndox mu yees ci ñaari baaraami sànnikaay yi ak ñaari baaraami dëy yi ndax ñoom ñooy bëgg massa noppi loolu moo tudd yeesal ndox loxo bu ne daa am baaraamu sànnikaay loxo bu ne am baaraamu dëy moo tax mu tudd ñaari baaraami sànnikaay ak ñaari baaraami dëy ko xam nga day ne woon toftale farata yi sunna la mu ne loolu nag mooy nga toftalee ni alxuraan waxee ne faxsiloo wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa amsaxoo bi ruusikum wa arjulakum ilal kaabayni alxuraan daa njëkkee raxas kanam teg ca raxas loxo ya teg ca masa bopp mujje tànk ya nga tegalee noonu la wax ne sunna la